الله أكبر الله أكبر lii mooy Fatawa seen ay laaj ak ay tontu semaine bu nekk ngeen ciy ànd ak imam Hassan Sarr ci ay question d'actualité bu leen dara raw abonné leen ci chaîne bi alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دجي أجيين كسوني دجي بيغا خمنا دانكو سيق تلا تبونيك إن شاء الله معجوشي لاتيغا خمني يينيجي كفي يوني ak la nga xam ne ña nga koy jéem di ko ca tontu talaatay tey ji mooy le 10 ci rabiul awwal sunu maam yi di ko tudde weeru gàmmo ci 1442 muy tombeeg le 27 octobre ci 2020 numéro yi nga xam ne ci la ñuy yónnee laaj yi moom mooy 77 814 42 20 wala 77 275 01 91 wala su groupe bi nga bokk boo xoolee ñi ñuy tuddee at mi soo ca jaaralee sa laaj it dana yegsi ci ñun ñu ñaan suñu borom yàlla ñun ñépp yal na yàlla boole ñu ngërëmam te jagleel ñoo aafiya fi dunya wal axira waaw mbokk bi nga moom day laaj mu ne waaw ndax am na loo xamee ne nii day tax nit ki am wërsëg boo xam ne nii day ubbeeku wala kulli xaal li ñu jëkk a wax mooy bokk na suñuy aada ñu naan diw day daa tëju wërsëgam daa tëju ñu jàpp ne dañ koy liggéey wala kaza wa kaza waaye jullit li ngay jëkk a gëm suñu borom yàlla jaam bu nekk moo ko bindal wërsëg suñu borom subhanahu wa taala mooy wërsëgal inna allaha huwa razaqu dhul quwwati matin daa fekk nag loolu muy dogal da ca boole itamit sant ñu ñu sabablu képp koo xam ne gëm nga ne yàlla rek kay dogal nga di frenkulaayu nag ne damay xaar dogalu yàlla xamoo lan mooy diine képp koo xam ne it danga mel ne ate yi nga jàpp ne yow loo am yaa ko may sa bopp bàyyi gannaaw dogalu yàlla xamoo luy diine kon ñaar yépp lañuy boole kenn du la xañ wala mu lay jox kudul yàlla su ko defee sabab ba it la yàlla tëral nee na huwa allazi jaala lakum al arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi maa leen tàllalal suuf dox leen ci kaw suuf ngeen sag faggu faggu wërsëgu yàlla lekk ci wërsëgam dox boobu nag mën naa nekk ki génn buntu këram dem ca marché ba kii génn dem beneen dëkk kii génn dem beneen réew waaye ala kulli xaal la nga jàpp ne moo tolloog yow nga sabab lu ca ba bàyyi yàlla di indi leneen bokk na ci it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam ñu doon wax ne ku bëgg yàlla yokk wërsëgam yàlla yokk dundam barkeel ko nay jokk ay mbokkam ca maa ngi ci ñaax rawatina sunu jeunesse su tey li ñu xam mooy xarit wala intérêt waaye mbokk moom nit ñi xamatuñ ko waaye xamal ne jokk say mbokk day yokk wërsëg bokk na ci loolu itamit di baril di jéggulu sa boroom boo yëgee ne am nga bàkkaar booy def tuub ko jéggulu ko wala boo ko nga boole ca foo toll di baril di wax astaghfirullah astaghfirullah ak formu astaghfirullah yi nga xam ne waaye lii ma la wax lii lépp nag la nga xam ne moo ko ëmb mooy la suñu borom yàlla di wax ni wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaysu la yaxtasib képp ku ragal yàlla mu may ko génnuwaay wërsëgal ko fu mu ko foogewul su ko defee yow jullit soo bëggee wërsëg woo xam ne dana la doy dana barkeel ak lu mu néew néew fexeel ragal yàlla defal ndigg li yàlla yi bàyyil li yàlla yi boo ko bokkaale ak kenn bul yaakaar keneen ku dul moom lii day bu dëggoo ci yow la nga am lu mu néew néew yàlla dana ko barkeel ba mu doy la ca it ñoo xam ni lu doy amul ci kaw suuf loo xam ne nii dañ ko doyloo rekk am ci kaw suuf ca loolu yàlla du ko jagle lu dul ab jullit yal na yàlla barkeelal ñu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw kii moom dafay laaj man dey dama bëggoona <clears throat> dem ca banque bi pour leb fa kër goo xam ne dañ ma koy jëndal gannaaw ba itamit su dee man dama gàddu bor bu tol noonee ca banque ba ndax mën naa koo boole nag ak di aji ji makka waaw lañuy jëkk a wax dey mooy dem ca banque ba mu jëndal la kër doonte ne ne am na ay borom xam-xam yoo xam ne ñu ngi ubbee loolu ci nit ñi te mooy yow am nga droit dem gis benn kër waa ji di jaayee kër ga masalan trente millions nga dem ca banque ba ne ko dama bëgg yow nga jënd kër gi te lebal ma ko su ko defee banque ba moom ñëw jënd ko trente million lebal la ko quarante millions loolu am na ñuy jàpp ne lu dagan la waaye ñun dey ñi ngi doyloo boroom xam-xam yi nga xam ne dañ ne loolu dagganul la nga xam ne nii mooy la dagan mooy banque ba amoon ay këram di ko jaay soo demee bànk ba lebal la ca kër yooyee ak lum la ko mën a lebali loolee na waaye banque moom soxlawul kër bëggul kër lan moo ko itteel mooy dana décaisser trente millions pour recevoir ci yow quarante millions di contrat bu sûr boo xam ne amu ci benn risque loolee mbokk da ngay gis ne borom xam-xam yu bari yi ñuy déglu bokk na ci ku mel ne Cheikh Ousaymin ku mel ne rahimahullah ku mel ne Cheikh Fawzan euh, hafizahullah ñoom dañ naan loolee daganul soo demee biir Europe dana fa am yenn borom xam-xam yoo xam ne dañu naan lu bari ci ñi nekk foofu yor yenn famille yu am juróomi doom ak yooyu kenn du leen nangoo luwe ñu ne nag kooku soo loroo bay nara dem di fanaan ca mbedd ma yàgg sa njaboot dana dagan nga def transaction boobu ñu jëkk a wax ca mooy propose banque bi mu jëndal la waaye daal jullit bu nekkul ci benn lor nekkul ci benn xat-xat dem rek gis benn kër na banque kaay jënd lebal ma banque jënd lebal la loolee doonte ne am na ñu koy wax ñun dey la ñuy dikkal mbokk yi mooy jullit bul dugg ci loolu mukk xanaa lu dul loo xam ne dangaa yegg ca lor boobee boroom xam-xam yi nekk Europe di proposer ña nga xam ne ñoom lañuy ñuy ubbee su dee ñaareelu question bi kii leb na banque bi masalan gàddu na fa borub 40 million ndax kooku bor boobu dana ko tey dem màkka déedéet mbokk su dee ne am nga loo demee màkka mën ngaa demee màkka ndax bor bi nekkul bor boo xam ne dañu la ko tënk ne da nga koy fay léegi-léegi ay boru traite la kon maadaama yow man nga respecté traite yi yi ñu la dig yi nga waxanteeg banque bi ba pare dem makka loolu dangay da ngay gis dara teewul a dem makka wallahu subhanahu wa taala alam waaw kii moom dafay laaj lii nga xam ne mooy ay yi ca mooy ak ngorowoo ñaata temps la war a durer ala kulli xaal fokk ñu xam lan mooy ngoro woo ci lislaam bu dee ci jeunes yi lii di fiançailles mooy ñaari xale yu góor ku góor ak ku jigéen dañuy daje ca lekkool ba bëgg naa la bëgg naa la ay ca ñu daal roof ngoro ngoro goo xam ne mën na durer ay at seen waajur duñ ko yëg mbokk lu islaam xamul loolu islaam li ma xam ci ngoro mooy yow ku góor ki dem nga ba mën a takk soxna loolu la yonent bi digle woon man istataa minkumul baata falyatazawwaj dem nga ba mën a takk soxna muy benn nga gis soxna boo xam ne kii kët mën naa koo takk nga sol sa dàll dem ca way juróom toog ak moom ne ko sa doom sàngam dey laa bëggoon a takk mu ne la waaw nangul naa la waaye nag masalan nañu xaar ba bi sàngam nañu xaar ba mu pare ci examen nañ xaar ba nangam temps boobee nga xam ne kilifa ak ndaw si jox na la ko muy délai loolee dañuy tudde ak ngoro ngorowoo walla nga ñëw ñu ne la ah bala ñu la ko may kat fokk nga indi cinq cent mille ndax cinq cent mille lañ mayoon ay sëram fekk yow sëñ Caam ba ngay dem trois cent mille nga gànnaaw yoo woon nga ne leen waa kon may leen ma ma dem lijjanti nga dem lijjanti ngir mottali kon délai bi ñuy wax ci ngorowoo mi fiançailles mooy ngant ba jur wa am ngir préparer ban jour moo gën a yeyoo mu maye doomam walla yow ngay préparer wu ngir matal lañ la laaj waaye gannaaw lii fiançailles bu dul bi islam xamut loolu loolee kon xale yi ngeen bàyyi ci xel bu baax ca loolu it mooy seen intérêt euh, mi ngi noonu wallahu subhanahu wa alam waaw soxna si moom dafay laaj lan la lislaam wax ci ay déguisement mbokk déguisement loole muy ay tenue su doon tene ne dañ ñii day dañoo amoon ak céet tey ñu ne ah doomi nijaay yi nga xam ne day ñoom ñoo war a liggéey liggéeyu céet gi nañ leen wutal pisi boo xam ne ñoo ko bokk muy col goo xam ne dana muur seen awra yépp loolu mook policier yi sol seeni tenue wala euh, usine bee nga dem ñu jox ku nekk tenue mu sol ngir ñu xàmmee leen loolu mooy la nga xame ne nii mooy mbiri loolu dara néewu ca amma bu dee déguisement yoo xam ne day ràññeekoo rek ci wàllu ay puukaréwu comme li ngay gis léeg-léeg nit ñuy daje ci gàmmo yee caaxaan yi am déguisement yoo xam ne nii lañ koy doy mooy di wër bi manifeste ñépp xam ne ñii fii la ñu bokk loole day dugg ci geneen wàll gu ñuy tuddee shuhra ca mooy ak ràññeeku ci lislaam lépp loo xam ne danga ko def di attirer attention ci yow loole mbokk da ngay gis ne ah islam du gërëm loolu donte ne ne yooyu mbokk mbir la yoo xam ne nii lu mën a ñàkk la ndax la chaque année dégisement ba ngay déguisé wu ca xew ba du ne moo lay dimbali ca togg ga wala ca yàkk ga nit kii mën nga togg yàq fekk ñe doo sol lu noroog la sa moroom sol mi ngi noonu wallahu subhanahu wa alam waaw kii moom dafay laaj lan la lislaam wax ci posé la nga xamee ni nii mooy ay xef mbokk jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana yàlla rëbb na kay yokk yàlla rëbb na kaka kay yokkal loolu boroom xam-xam yi dañ ca boole kay yokk karaw ga kay yokk karawi ay bëtam yépp a yem loolu ñu bàyyi ci xel bu baax jamono yonent bi li xewoon mooy yéen yi nekk ci kaw lañ jigéen yi yenn yi daan wat di ko réajuster bu ko defee du mel ne na ko yàlla bind yonent bi rëbboon leen ngir loolu loolu itamit ki nga xam ne day dem ca xew wa jël ay sil yeneen yokk ci ay bëtam loolee ma ngay feeñal melokaan boo xam ne bokkul ak ba ko ko yàlla bindee dama jëlale nag la ca médecin yi wax ci danger yi nekk ci loolu waaye daal yow jigéen xamal ni loolu doon du doon lu dagan boroom xam-xam yi daal bokk na lu ñuy maye mooy ki nga xam ne yàlla da ko nattoo amul karaw masalan bopp ba dafa nekk bopp nel fondang ku mel noonu dañuy gis ni mën naa pose ci boppam karaw ngir jublu ca teggi ay ayib bokkul ak koo xam ne dafay indi dara ngir jublu ci yokku taar ka nga xam ne ay bëtam daa nekk rekk der kese amul benn xef ko mel noonu lam cay def ngir teggi ayib bokkul ak nag ka amoon ne xef yokk xefee ngir jokk taar su ko defee daal lislaam dana maye ñu def dara ngir teggi ayib masalan yonent bi sallallahu alayhi wa benn ci saxaaba yi demoon na jihaad ñu dagg bakkan ba yonent bi na ko defaral bakkanu or nga nga nga nga di ko takk waaye gis nañ ni jullit bu demoon ak bakkanam dem jël bakkanu or teg ci di ko takk ñépp dañuy xam ne xaraam na waaye comme que day teggi ayib su boobaa loolu dana doon lu daggan de règle boo xam ne nii ñépp war nañ koy bàyyi xel lépp loo xam ne dafay daq ayib ci doomu aadama bi islam dana ko nangu lépp loo xam ne nii dafay doon luy yokk doomu aadama bi ca taar dong taxu koo jëkk islam du nangu loolu wallahu subhanahu wa taala waaw soxna si dafay laaj ndax man bu may gis règle damay jàpp sept jours yi wala bu deret ji daggee rek yu maron yi génn jarul mën naa ko julliwaale wa ku li xaal jigéen heure booy gis règle bokk ñu li gën a mucc ayib mooy nga bàyyi ba deret ji dagg waaye deret ju maron ja cay toppit nga bàyyi ba mu jeex su suñu ay Aïcha jigéen ñi daanañ jël ay coton di ko ko yónnee pour xool ndax seet na ñoom déet mu naan leen déet néggandiku leen ba gis la nga xam ne mooy ndox mu weex mi su ko defee yoo euh, yooyu nga xam ne dafay topp gannaaw maron yooyu ñu xool ba xam jeex na lu ci bëri it jullit euh, jigéen yàlla da ko bind ci période boo xam ne ci lay gis baax su ko defee boo tegale woon lu mat ñetti baax yoo xam ne yépp six jours rek la durée su boobaa dañu naan yow kat sa baax si jours la loolee da gis ne soo demee ba six jours ya mat ca deret ji arrêté nga daal di dem sangu su dee ne six jours ya mat na nga gis ne deret jaa ngay continuer borom xam-xam yi dañu naan teg ci ay fan teg ci ay fan ba baa nag muy mat quinze jours su dee ne dem na ba mat quinze jours deret ji continuer ñu ne ah su boobaa lii dootul règle lii feebar la demal sangu set commencé di julli waxtu nekk nga jullil ko nga jàppal ko loolu la ñuy wax ci wàllu googee waaye nañu xam ne du ne islam daa tëral na règle six jours lay doon wala sept jours lay doon jigéen ñi ku nekk ak aada bi yàlla def ci yow mi ngi noonu la nga xamee ne daal mooy lii wóor mooy soo demee ba deret ja jeex na maron yi jeex na ngaa ngi commencé gis ndox mu weex su boobaa demal sangu ji nga julli wallahu subhanahu wa taala alam waa kii moom dafay laaj ndax euh, dafa dégg ñoo xam ne dañ ni bu ñuy jàpp dañuy raxas seen tànk ñetti yoon loolu naka lay demee waaw bu ñu xoolee ci wàllu njàpp day la ëpp ci xadiis yi jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa day jàngale ne raxas na kanam ñetti yoon loxo ñetti yoon waaye tànk moom dañ naan rek daa raxas tànk ndeyjoor ak tànk càmmooñ soo demoon it ci téere mazhab gi daanaka loolu rek lañu cey jàngale waaye boo dellu woon ci yeneen téere boo demee masalan lu mel ne saxiixu muslim da ngay fekk usmaan ibnul affan radiallahu anhu taxaw na ci kanamu sahaaba yi ba mujj mu ne nañ ko indil ndox biñ ko indilee ndox usmaan jàpp seen kanam bi mu yegsee ci tànk ndeyjoor mu raxas ko ñetti yoon ba ca dojar ya comme ni ngay raxasee normal raxas tànku càmmooñ ñetti yoon gannaaw ba nag mu ne nii laa gis yonent bi jàppee ko gannaaw ba yonent bi nee na ko jàpp-jàpp bu mel nii jóg julli ñaari ràkka yoo xam ne diggante bi xalaatoo fi lu bon yàlla baal na la la nga jiitaloon lépp ci bakkaar loolu moo tax ba euh, soo gisee kuy raxas tànkam ñetti yoon loolu doo ko ayibal ni nga koy defee it mooy da ngay téye tànk bi raxas ba ci kaw commencé waat ci catu baaraam yi raxas ba ci kaw commencé waat raxas ba ci kaw baax na it ci léeg-léeg nga koy jëfee ndax xadis ba nga xamee ne ni rot na ca mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw kii moom mu ne damay julli bi ma jullee sujud benn sujud toog na commencé taaya waaye avant muy sëlmal laa fàttaliku ne benn sujud laa def mu ne nag moom lan laa lan laa war a def xam naa waroon naa wax lam def avant muy laaj ala kulli xaal su dee ne su boobaa yow da ngay sujud rek sujuutu ñaareel soo sujutee sujuutu ñaareel reprendre taaya bi encore soo taayee ba pare nga daal di sëlmal boo sëlmalee nga sujuutaan ñaari sujud yoo xam ne ni moom lañuy ñuy tuddee baada salaam ngir taaye bi nga dogal ci ñaari sujjóot yi loolu mooy la nga xam ni moom lañu ñu war a def bu doonte ne nag ba nga sujjuutee benn sujjuut da nga taaye ba pare sëlmal bu doon mazhab Maalik day ñoom dañ naan la jógal indiwaat beneen ràkka bu mat sëkk doog a la nga xam ne nii mooy baada salaam wallahu subhanahu wa taala alam mbokk bi mu ne ñun dey jàkka ji ñuy jullee daa am imam boo xam ne ab seetkat la moom nag du toujours muy jiite waaw léegi-léeg nag man damay ñëw tombe muy jiite dama xamul ndax damay ber saak julli wala nu deme demee ala kulli xaal mbokk jullit dëkk yu mel ne Sénégal nga gis fi imam boo xam ne du nekk di def ay ñaan ak yi ay seet loolee day doon loo xam ne lu tumuranke lool su ko defee daal bokk na lu borom xam-xam yi di wax mënees naa julli ganna waraa kulli barrin wa fajir képp koo xamee ni nii daal mi ngi nekk ci kàccorteeg ak bàkkaar yu mag yi muy def maadaama mi ngi taxaw di julli ca dana ci loxoom allahu akbar jaarale julli gi nam ko war a jaarale su boobaa yow mën ngaa julli ci gannaawam la nga xamee ne moom moo nekk ca moom loolu ca moom lay des mi ngi noonu yow du jeexital ci yow dara loolu daal mooy la nga xam ne moo gën a mucc ayib ci nga bàyyi jàkka ja complètement ngir imam ba fay nekk imam la buy seet mi ngi noonu loolu nag dàqantiwul ak euh, sa kemtaleel kàttan nit nga def ko ci mooy imma nga man koo gis directement na ko ah imam da yow royukaay nga ca ñu de dañoo dégg yonent bi alayhi salaam ne jëllale jëllale nañu sax kay seet waaye ka dem ca seetkat ba rek ñiin fukki fan yàlla du nangu julleem loolee nga lay ci biir imaam léegi léeg dana jafe waaye nga xool kilifa yoo xam ne jege nañ imaam nga jaare ca ñoom ñu lay lay biir imaam gannaaw ba nga amee preuve yoo xam ne ni xam nga ñu fa dem imaam seetal leen ñooñu ñu layu ko biir loolee moom lu war la donte ne bu doon jàkka ju organiser la it su imaam ba insister bañ a bàyyi seet googe kilifay jàkka ji war nañ ko fa jële teg fa beneen imaam loole mi ngi noonu waaye daal avant loolu lépp di am liñ lay ñaax bul bàyyi julli mbooloo demal julli ca mbooloo ma wallahu subhanahu wa taala alam waaw kii moom dafay laaj dama doon julli tisbaar ca ñetteelu rakka ma commencé jàng saar jàng ca quelques aaye fàttaliku ko daa di bàyyi ndax loolu dafa jar mu sujjuutal ko ala kulli xaal bu saar ba yeggoo ñit loolu jarul ñu koy sujjuutal yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñu ëpp ñi nettali julleem dañ ne ñetteelu rakka ak ñeenteel fatiha la ca daan jàng waaye bari na lool ñu nettali ak julleem wone ne daana jàng ay saar ca gannaaw ñetteelu rakka ba ak ñeenteelu rakka ba noo xam ne nag yonent bi aleyhi salaam da ko doon jullee te ne jullee leen ni ngeen ma gis may jullee doo ko jullee ba pare ñu naan la sujuutal lu mu mën a doon su ko defee daal soo jàppee ne yow ci faatihi nga war a yem nga yem ci xëyrun waaye boo juumee nga jàng suura bal sax bu doon da nekk ci gannaaw imaam imaam jàng nga sa faatihi ba pare imaam rukkoowul bala nga faa toog defoo dara la nga mën ci alxuraan jàng ko loolee da ngay gis ne tuyaaba la lay jural تعمل لين لم يقصد جلي والله سبحانه وتعالى أعلم وكده إلا دخ لغا خميني ني موي زكاة من اسم كو جوخ سي وجور اك سي دوم اك سي رك ددين بكو زكاة كن دو كو جوخ سي وجور زكاة كن دو كو جوخ سي دوم زكاة كن دو كو جوخ سي سخنا gannaaw ñooñu nag muy la nga xam ne nii frère yaag maam yaag nijaay yaag bàjjen yaag ñun ñëpp mënees na leen jox zakat loolu mi ngi noonu mbokk bi di laajit zakatu muuru koor moog zakat bala rek a yem ña nga xamee ni nii ñoom lañ koy jox mooy ñeneen waaye doo génn sa zakat di ko jox sa ndey wala di ko jox sa baay wala di ko jox sa doom amma ñeneen ñoo xam ne nii dañ laa sori gi say mbokk mën nga leen koo jox muy laajit ne waaw bu dee génnewoo ko woon moom lan mooy mbir bi léegi bu dee génne woo ko woon it heure boo ko mañee danga ko war a génne yonent bi alei salatu wasalaam nee na ki génnee muurum koor avant muy julli ji kooku am na zakatu muurum koor ki nga xam ne dafa julli ji ba pare doo koo génne nag sarax la am ci sarax yi waaye yonent bi waxul ni ku ko génnewul avant nga julli na ko bàyyi déedéet mooy boo ko génnee avant julli ji tuyaabaja day foofu la gëne foofu la mate waaye boo ko deful woon it heure boo ko jekkoo def ko mu nekk ab sarax ñeel la wallahu subhanahu wa taala alam waaw mbokk bi dafay laaj ñun day fii ñu nekkee ci bundu dafa am sunu maam yi fi nekkoon defoon fi ay jihaat am ñuñ fi jàppoon ay jaam yàgg na ñooñu nag seen njaboot ba tey dañuy jàpp ne ñoom ay jaam lañu dañ ci gis ñoo xam ne daañ am alal ba tabax ay étage waaye dañ naan duñu dem màkk ndax ay jaam lañu jàkka ji duñ fa jiite kenn du leen jël ay seede seeni jigéen ten ji ñaari weer la ñuy def ilaaxiri waala kuli xaal mbokk loolu kaa boobu day kaa la boo xam ni boroom xam-xam yee nekk foofee ñoo ko war a saytu nañu xam ne mbokk jaam ci sharia mooy lan mooy koo xamee ne nii moomeel la ni ñuy moomi xar yi ak nag yi lañ koy moomi heure boo xame ni nii ki ko moom faatu na dañ ko war a comme ni ñuy miiraasi xar yi ak nag ya waa ji moom am na droit jël ko dem jaay ko mi ngi noonu faj si ay aajoom bu dee jaam yooyu nga xam ni noonu lañu mel loolee da ngay gis ne ay jaam la yu ñu xam am maa nag jaam bi nga xam ni dafa jàpp rek man jaam la comme ñin nit ñi jàppe ne ay géwél lañu wala ay lawbe lañu wala ay nàngam yor alalam lu ko neex def ba pare ne du dem makka mbokk loolee nekkul loo xam ne nii lu wóor la la nga xamee ne mooy jaam yu jëkk ya nga xam ne seen sangaleen moom am ci ñoom droit ñooñee la lislaam teggil ne dem makka day du farata ci ñoom ndax amuñu benn kattan ci seen kanamu sang waaye yow bu dee yaa moom sa bopp yaa yor sa alalu bopp yaay tabax say étage ba pare nga ne loo dem Makka loolee mbokk nekkul lu wóor su ko defee daal masala boobee ñi ngi ñaax képp ko bokk ci ñooñu ñuy wax jaam lépp loolu lislaam sant ca nga man koo def nga la waay taxawal def ci loolee loolu daal mooy la nga xam ne mooy la gën a mucc ayib wallahu subhanahu wa taala aalam waaw kii benn soxna la buy laaj mu ne Euh, moom day dafa am nijaay yoo xam ne nii dañoo am ay doom yoo xam ne jaaruñu ci yoon léegi nag euh, ñun dañ leen a jàpp suñu doomi nijaay comme ni ñu jàppee yeneen doom yi naka la lislaam gisee loole wala li xaal mbokk loolu am nattu la boo xam ne suñu borom yàlla dañu ko nattu jàpp naa ne am na fu ñu ko tontu bu yàggul dara xawma ci tafsiril wala feneen li ñuy wax daal mooy bu ñu dellu woon ci li ëpp ci boromi xam-xam dañuy naan képp ko am doom ci sëy jiituwu ko doom boobu kenn du la ko askanele abadan am na ci ñoom nag ñoo xam ne dañ ni su dee ne ki nga xam ne moom lañu amal doom day du soxna kenn du jaamub kenn ba nga amee moom doom yow yaa ko nangu ne yaa jur doom ja soxna si it reconnaître na yow dong dong yaa ànd ak moom su demee noonu doom boobu mënees na la ko askaneel loolee ñu naan doomu diw la ñu askaneel la ko loolu nag na ma la ko waxee du lu néew ci ñoom ñoo ko wax donte ne bokk na ci ku mel ne Cheikh Islam Ibnu Taymiya rahimahullah su ko defee yow mi nga xam te nii kay dañ koo askanale ne sa euh, nijaay ko jur la ngay séq ak moom ci mbaax ci teraanga ci jokk lu baax maadaama rawatina mu nekk doomu jullit yi daal lislaam du nekk lu ko bañ xam naa rek xamal ni doomu nijaay du ku ñuy jox loxo doomu nijaay du ku ñuy ànd di wéetal doomu nijaay moog doomi ña saree sari ñoo yem ci yow ci wàllu maxram amul droit gis sa awra amul droit gis sa dara am maa ne bu nekkin bu rafet ak jëflante bu rafet loolee moom dangay gis ne islaam bañu ko ñu def ko ak keneen koo xam ne nii sax sa nijaay juru ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa alam waaw kii moom dafay laaj ne man day léeg damay bàyyi sama téléphone ci sama néeg mi ngi jàngal quran ma dugg sama salle de maa ngi dégg alquran bi ndax loolu dara nekk na ca déedéet mbokk loolu dara néewu ca maadaama yow alxuraan ba jëloo ko dugal ko ca biir sal de bin ba feneen la nekk bruit ba di ñëw di la fekke si loolee ku ne xam ne ne ni euh, lii di son moom de traversé ba mën a yegg fu sore sori la nga xam ne daal moom la ñuy bañ rek mooy nga teg portable ba ca biir salle ba waaye bu dee ca feneen la nekk fujul foofu dégg ga ngay dégg la fay jóge rek loolee nekkul lu ñuy tere wallahu subhanahu wa taala alam waaw kii moom dafay laaj kii nga xam ne daa takk soxna soxna si ñëw juboowul ak njaboot gi mu fase ko lan la lislaam wax ci loolu ala kulli xaal la lislaam wax ci loolu mooy ñàkk jub njaboot ga ndax ci moom la jóge walla ca njaboot ga la jóge su dee ca moom la jóge ci jukkoom yu bon loolee moom suñu boroom mu ne xatta jigéen ñi ñi fase bu ñu leen génn ci kër yi illa an yaatiina bi mu mubayyina lu dul ñu indi ay ñaawteef yu leer ca loolu la ko boroom xam-xam yi di firi mooy ñuy wax wax yu ñaaw jëm ca jur ya ak njaboot ga kon bu dee loolu am problème waaye daal bu dee ne moom ñoom dañ koo bañ rek njëree ne dañ koo indi ca kër ga ca moom defu la dara loole dangay gis ne islaam moom dafay wax la dara darara wala diraara doomu aadama bi waroo lor jigéen takk nga ko ca farata ak sunna ñëw na sëy bi lam ca waroon a def yépp def na ko ci fa indi mu sëy bu fa mënta am jàmm danga koy sàkkal feneen pexe waaye ngir ñeneen ñoo xam ne seeni passion rek tax na nga fase ko loolee mbokk waxuñu ne def nga lu xaraam ndax góor yow yaa takk sa soxna yaa ci def sa alal fase ga nga koy def nii defuñu defu nga lu xaraam waaye lor ga nga koy lor daal loolee mbokk nañu xam ne islaam moom bëggul ñuy lor doomu aadama ci loo xam ne du moom moo ko sabab mbokk mi ngi noonu am na fi yeneen laaj yi fi des ñu ngi ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa lépp loo xam ne jub na ci laaj yi yal nañu wërsëgal ñu jëfe ko mu nangul ñu ko lépp lu ci dugg ci ay njuumte yal nañ ko xamal wërsëgal ñu ba ko ca mu teg cal ñu fa dëgg nekk wërsëgal ñu topp ko ca nangul ñu ko wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh